mandat boo leen bëggee da ngeen koy ñaan ma ne leen jël leen soo leen bëggee waaye si njëkk nag si njëkk de waaye par force doo nekk doo doo nekk candidat ñu teg ko ci leen ci seen bëgg-bëgg mais au nom de te ñi koy wax ñoo campagne oon le référendum bi bu wii jàllee président dina def deux mandats tout le monde le tout le monde sait lire le droit kon débat boobu duma ci dugg parce que débat dialogue bi la man nangu naa ñu débattre ko dans le dialogue ma je comme nangu naa ñu débat débattre l'ouverture et l'inclusion parce que c'est pour le Sénégal c'est pour l'avenir de ce pays donc loolu bu ñu ko gëmee nañu dem ci dialogue bi dans cet esprit pour faire avancer encore